tey nag ñi ngi ubbi marché Mbàkke bi nga xam dañ ko doon defaraat wante ubbi gi ñu ko ubbi ubbi bu symbolique la ngir mbas mi nga xamante ni moo am ci àddina bi di ko lëmbe te muy gën a yaatu di gën a inquiété nit ñi marché bi nag ñi ngi ko jagleel Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacke nekkoon ñaareelu xalifa sëñ Touba marché bi Cheikh Mouhamadou Fadel moom la Senghor mayoon marché bi mu ñëw def ko fii ci Mbacké te xeer yu njëkk en 1963 ba ni mu ko ubbee biñ ko yeesalee nag ñu ne dañ koy delloo tur delloo ko njukkal liggéey bi nag ñi ngi sant ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañ ci muy la bureau municipal le conseil municipal le point focal Abda Fall di nuy tamit di sant tamit ki nga xamante ni mooy le préfet de Mbacké ndax jàpp na ci liggéey bi le chef de service de l'urbanisme di sant tamit waa ARD ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy archi art ñi nga xamante ñoo concevoir réhabilitation di sant it njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ngir bi ñu demee ba war a tàmbali liggéey bi mu yeex jafe ngir mbalit mu bari ñoom ñoo fi dikk ci ndigalul Serigne Fallou Fall yendu fi andi fi lu ëpp ñetti téeméeri nit ak seeni i camion buub lépp ba mu set ngi sañ Tuuba loolu it ñu ngi sant it waa marché bi yëpp di leen gërëm di xam ne lii rek lañ bëggoon defar marché bi ba ku fi dikk nawloo defar marché bi ba waa Touba sax ñëw di fi dugg si te loolu bokku na ci liy dundal dëkk bi bokk na liy gën a doxal liggéey bi liggéey bi it état du Sénégal moo créé li ñuy wax PACASEN muy benn programme boo xamante ni dafay accompagner communes yi ak collect ak agglomération yi loolu it Mbàkke it bu xante ne ba am ca enveloppe bu doon la njëkk a génn it marché ci njëkk a liggéey am na yeneen projet ci war a tegawaat yu bari yoo xam ne incha allahu rabbi fekk semaine prochaine dina am yeneen yu tàmbali wante di xam ne marché bi lii benn étape la rek bu njëkk yeneen état bi bu ñu yàlla dimbalee lu yàgg dara feegi weer wala ñaari weer dana lancé waat beneen étape bi bu ko defee liggéey bi di wéy ñu xam ne rek na liñ ci jublu lépp pour askanu Mbàkke la te askan wi rek ñoo koy jariñoo looloo waral jafe-jafe ak métti yi fi jaar yépp ñu ngi mastawu suñu bokk yi nga xamante ni coono yooyu dund nañ ko muy commerçant yi wante muy usagers yi di waa dëkk bi ñi ngi ñaan nag ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul suñu borom mi nga xamante ne jeexalut te mooy maye mu defal ñi ci marché bi ak ñëpp wërsëg ak wér ak tal boo xam lépp lu leen rëccoon rek ci lu weesu rek ñu dab ko ba am lu ko ëpp te muurloog ci baat Xaadimu Rasul biñ ci xalaatee wax dëgg yàlla liggéey bi war a tàmbali it avant njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall di ñëw Croix Rouge bu Mbàkke jël nañ téeméeri ndaw indi leen fii ñu yend fi suuf ngoon jot di jublu ci mbalit mi liggéey ci ba seen doole yam ñu yem fa kon ñu leen di sant bu baax liggéey bi it biñ koy prévoir juróom-benn fukki million ak juróom-benn lañ prévoiroon biñ demee ba ci biir liggéey bi gis nañ ne am na bërëb yu ñu ci war a yokkaatoon moo tax dem na ba laal juróom-ñaar fukki million ak juróom yu manqué tuuti kon nag ñu xam ne liggéeyu marché bi du benn lii rek ay étape la dañu bëgg a yeesalaat marché bi moderniser ko ba waa Mbacké lu ñu ñee kenn ci àddina ndax gis ngeen li xew kaw la gis ngeen li xew ci marché yi marché yu bari lakk na am na ay jafe-jafe ñun nag war nañoo fexe liggéey noo xamante ni ba suñuy nawle dikkee ci dëkk bi ñëw ci marché bi nawloo ñu kon ñu ngi félicité bu baax suñu bokk yi nekkoon ci marché bi di ci liggéey njabootuk sëriñ fàllu it ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di xam ne mbir mi moom dañ ko delloo borom ndax Cheikh Mahamadou Fadal sega moo tegoon xeer wi inauguré ko ñu defaraat ko bàyyi nañ xel nag ki nga xamante mooy maam Cheikh Ibrahima Fall wante it di ko jaar ci jëmm ju fit jaar ñëw léegi muy sëñ Modou Aminta sëñ fàllum sëñ Modou Aminta ndax seetlu ngeen ne dañ koo def couleur bii muy couleur bokk baax li muy soññ rek mooy ne ñëpp bokk ndey bokk bàyyi liggéey seen borom dimbali ñu cee liggéey it te it Cheikh lu ko waaye defal rekk Cheikh Ibra Fall am na cëp cër moo tax biñ ko tabaxee it tuddee ko sëñ fàllu wante jël kuréel sëñ Fallou Fall jox ko léegi ci wàllu sécurité monté nañu benn bouche d'incendie boo xamante ni capacité am capacité bu am doole la am nañu ay extincteur yoo xam ne dañ ko installé ci biir marché bi xam fu jëyee amee rek ka njëkk a jege rek dana mën a yëkkati extincteur bi fay sawara soos wante it defar nañ fi ubbi nañu marché bi tamit pour que ëllëki si biir ñaan ko yàlla bu dara xewoon sapeur pompier mën a dugal seen oto bàyyi nañ xel it bu jafe-jafe amoon it nit ñi am fuñ mën a jaar def nañ ko ba bu doon guddi la ñuy ñu fiy jaay guddi lu mel ni événement yi yàlla seen borom dogal courant coupé am na lampe yu ñu fi installé yoo xam ne day takk enchaîné nga xam ne lëndamaay du am loolu it mooy étape bi ci ëppoon solo it mooy kenn ëmpalewul ne bu masaan nawet bu masaan nawet kenn du fi mën a dugg suñu mbokk jigéen ñi ndax marché bi it wax dëgg yàlla bari naa fi tànk maanaam dañoo bokkul waxtuñu fii ñu fiy wante ñi gardien miin nañ ma ci marché bi ndax fu ma fii visité ñoo ci ànd moo tax bi ñuy liggéey fekk na ma nit lu mat at wala ñaari at maa ngi fi ñëw guddi di xool li ñu war a liggéey te liggéey bi chaque jour semaine bu ne dinaa fi ñëw ñaari wala ñetti yoon bu ko defee lu lu manqué wala lu des ñu mën koo accélérer liggéey kon ñoo bokk liggéey bi. ndax liggéey bi lépp mi ngi war a nekk ci diiru juróom-benni weer. ndax ñetti weer lañ xalaatoon mais bi expert xoole xoolee ne mënul ne wante juróom-benn weer yooyu boo xoolee manqué ne daanaka weer ak ñaar fukki fan ndax dañoo accéléré liggéey bi ndax it li ko waral mooy condition yi nga xamante sin mbokk commerçant yi nekk nañ ci fee ca site de recasement bi métti woon ne métti goo xamante nii ñu nit liñ mënoon lépp def nañ ko pour liggéey bi ñu accéléré ko pour ñu des xanaa di leen ñaanal nag ci bàkk Cheikhul Khadim ba lépp lu leen rëccoon rek suñu borom defal leen ci wér ak tal ak am-am ngeen dabok ci bàkk ci Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul recasement bi nag wax naa commission bi suba nañu commencé joxe numéro yi commencé installé nit ñi bu ko defee toogaay amul ñu mën a ñëw équiper ko euh, occuper seeni place fi may daaneel nag mooy wàllu sécurité wax naa ko wante wàllu entretien wàllu entretien bi it maa ngi ñaan kenn ku ci ne place bi ngay jaayee nga jàppe ko sa kër ndax ku ci nekk sa kër yaa ngi koy defar sa néeg koy defar te nit it fa koy nawloo rek mooy fa nga koy fekk kon maa ngi ñaan li nga xamante ni mooy marché bi kenn ku ci nekk la nga yilif di ko tene fa nga setal mairie bi it dana am disposition yu bees yu muy jël benn mooy ajjuma june dana am équipe type bu ñëw nettoyer marché bi dana am it ay agent de sécurité yuy nekk ci bëri marché bi pour que nit ñi kenn ku ci nekk mën a respecter sa place bañ la jox kenn bañ a néewal kenn ñëpp tolloo ay chance loolu nag mooy mu bañ am kumba am ndey ak kumba amul ndey ñëpp bokk ci yem ku nekk kangatane nga tane nga ko tuwaale yi di pare woon na moo njëkk a pare marché bi xam naa incha allah à partir de suba danañ dem ubbi ko raxasaat ko la jar ci nettoyer ñu def ko jébbal ko ñi nga xamante ni ñooy waa marché bi maa ngi sant bu baax di gërëm bu baax te ngërëm loolu it mënuma ko def lu dul damay sant waa presse ndax presse bi mbas mi liggéey nañ ci liggéey bu ama am solo ci wàllu information ci wàllu sensibilisation kon bu fekkente ni def nañu lii tey te invité wuñ genn kilifa mu ñëw li ko waral rek mooy xam ne presse a ngi fi dana ko mën a jàllale ba dina bépp gis ko ñi ñëwut mën a toog seen kër gis ko mbaa ñu dégg ko mooy di delloowaat njukkal le président la république bi nga xamante ni moo tax PACASEN bi nga xamante ni moom lañ defaree marché bi moom moo teg programme bi nga xamante ni moom lañ ko liggéeyee. di sant tamit le préfet bi nga xamante ni moom it liggéey bu rafet la ci liggéey ñu ànd liggéey ko ba toll fii